Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre 20 pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay karo faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plainte wala ay baguette ba ci ay karo par Mbàkke lépp am na ci biir Taïf Karo ay karo espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal client yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matériel sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy 16 anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seen i sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo. ñooy number one ci wàllu jaay karaw ko ñëpp bàyyi hey Zé hey Zé hey Zé hey Zé hey Zé ñu ñëpp bàyyi jël ki moo am fit ki mooy jàmbaar ki moo am fit ki mooy dof avance bi ñëpp bàyyi yaay drapeau bi. ajal see. nee na Tonnerre yaay sunu mag yaar drapeau bi. xëy see. xëy see. xëy général. ki mooy général. ndaamal match bi lay ndaamal match bi kenn demoo ko ak andoo kara bëre lay ndaamal match lay dem téeri dafa ngi nii Kayar la bawoo Kayar Kayar la bawoo Jandeer waaw waaw e eh, wil jam wil jam ngi nii naa la ndaamal màcc la ki moo bëre woon ak euh, Tonnerre ki moo bëre woon ak Bara Ndiaye hey Diam Terry ki moo bëre woon ak Ahmed Deme hey Diam Terry ki ay ndaamal Gossas Diam Terry yi ni nee naa la kaar la bàyyi ko waaw waaw Diam yi ni am na doole mën na am na ngëm kenn ñu ma koo la ilaha illallah May, May, May, May, May, mënu ko pardon parce que kon fi mu toll nii maa ngi fi ci sama kanam pour boo ma jàpp seen yëngu. waaw loolu ñu ngi ciy xalaat ndax amaguñ dat xam nga tey boo génnee voyage te fu ma koo kañ ngay bëre nga xëy ñu ne la suba ngay bëre amaana doo xam fan ngay taxaw. man sama staff ñu ngi ñu ngi waaj ñu ngi def li ñu war di xaar jour bu ñu amee dara ci la ñuy décider li ñu war moom ñu ngi soobee yàlla waaw mais c'est kontaan ci yow kontaan ci yéen ñëpp sama mafia bi ma àndal ñoom ñoom papa daa ngi ne sama sa copain waaw sama copain ñoom papa suma rek ñoom biyaa ñoom papa daa takk jabar takk na jabar ne tokkul dara waaye seen yow yi def jabar wala sama waaye lan ngi def loolu waaye tamit lan di mo di mo ran tan fa ni ko ma gis gis ko mooy man damay moom. sonn naa ci dégg nga la gars yi woo nañu wax ma lu ne. célibataire laa ndax lamb ci lamb. yow lamb rek laay dox bilaay ci lamb rek laay dox. yàlla leen ma yàlla baax na.